nuyu dinañ jaar yi ñuy ci bon port ñu ñëw ci dama togal bi nga xam ne dafa titulaire lool Sadio Mané mën nañu wax nag Sadio Mané départ nañ max bi mais mi ngi def max bu baax mais nag euh, max bi euh, est-ce que amagul dama yaakaar nag bu rëy bu mbéytaay bi amul deuxième mbéytaay ñu imaginé ñu génnee Sadio bii doog a dugg loolu dana nekk loo xam ne franchement du neex kenn du neex kenn te bu ñu sañoon nag euh, Sadio Mané day dugal balaa ñu def benn changement wala même mu dugalul balaa nga leen dugal mais nag ñaari max yi nii tey bu dañaan Sadio Mané moo nekk jour boo xamante ne bii na euh, bu nekk ci Bayern Bayern bu efficace te loolu day nekk loolu xaw yoonu maa la moo tax daal Sadio Mané li war a xeex instant bii fexe am lu mu metti metti balaa marché be mbiitaam wala bu ñu mbiitaam balaa marché be dix mille bu fexee dugal bii xam ne même bu koy génnee bii dana am loolu dara moo nekk loo xam ne moo jaaru bu amul it jàpp leen ne euh, menace nag dana commencé am ci Sadio Mané te menace yooyu nag ñun ñëpp nag bëgguñu ko Sadio Mané ndax franchement nag mooy suñu star mooy suñu Messi mooy suñu Kylian Mbappé mooy suñu Neymar kon gars yi am na leen ngeen partagé ngeen like ngeen ñuy xaar fi suñu seen sport ak yeneen vidéo ak yeneen jàngat merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax